kàddu yi ak kàddu yi ngërëm ndax xam naa ni mbooloo mi fi ne moom mooy mooy gën a placé wu pour mën leen a présenter aussi mooy gën a placé wu pour mën leen a sant waaw waaw maa maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jégalu Serigne Maodo da dafa amoon kàddu yoo xamante ni dakaa waroon a dugal di si Serigne mbay Seck waxtaan si moom tuuti du daanale Serigne Sada daal di tëj daal def dugal cant euh, kàdduy cant ak kàdduy ngërëm daal di ñaan incha allah ñuy jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki xadara bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen tatagal mën naa ni suñ ji bi nuyoo na tatagal na jàngale na yeete na orienté na joxe na yóbbal bu doy waaye xër rek moo tax mu bëgg ma dugal sama kàddu waaye kàddoom mooy sama kàddu li ma waroon a wax yépp wax na ko ndax fi mu daanelee muy Serigne Babacar Seck mi nga xam ne moom moo moom pénc mi euh, fàkkoon ko amoon ci ay yéene ndax boroom gis-gis la woon yàlla dogal yéene jooju ay njabootam ku ci mel ni sëñ Mor Babacar comme ni mu ko waxee rek moom mooy poste fondateur ndax dañuy wax ni nga baax loolu bàyyi lu baax baax na waaye bàyyi ku baax it moo ko gën te sëñ Maodo ko ku ne xam na ni dëgg baax na te liñ ko bàyyee woon amul dara loo xam ne nduri na sax luy xaw a faay te loolu xam kilifa gi nga xamante ni moom la wutu moo tax mu mënoon dox doxin woowu dama koy wax ma ni léeg nga xool nit ci doxinam xam ni dañ koo tingoom tingoom boo xamante ni ku ko bëgg a yootu laal ko sax faw nga def yitte ju kawe pour dab ko si Mor Babacar noonu la meloon ci jom ja ci fulla ci fayda ci xam yàlla ga ci tab ga ci taar ba yàlla nañu ko yàlla fayal mook suñu sang ba suñu Adama Babacar nga xam ni ñoom ñaar ñoo bokkoon waar wi ak suñu Abdou Karim nga xam ne mooy xalifa suñu Babacar yàlla na yàlla doole koo taxawu gën a oyofal yanam gën koo déggale ak njaboot gi ba moom itam yéeneem ci penc mi yàlla mottali ko di nuyu sëriñ saada di ko gërëm ndaxit euh, gis nañ taxawaayam gis nañ yéeneem yàlla na yàlla mottali ko sëñ Babacar Seck nag nit mën nañ ko xamale ci askan ku ne xam na ni moom ñi ko meññi muy sëñ Momar Talla góor gu mag ak maam Araman Aan ku ci nekk da nga bu mbaax te doon ko xaar mu ñëw nga jox ko ko moo taxit bi mu yegsee doxinam dafa yomb kon danga gis ni moom bokk na fu baax waaye tamit nekkoon nit ku baax roy na ay kilifaam ba am ñoom baax kon ñun niñ mën a jàngee ci moom comme leçon mooy fonkoon na xam-xam ndax ba jàng jotee jàngaloo nañ ko waaye ba mu jàngee jàngale na ndax samp na ay daara ni ko sama turandoo sama sëriñ baax waaba daan waxee sëñ Maodo Babacar yoroon na fii daara boo xamante ne bi mu ko fii samp boobu yaakaar naa mën naa ni boo nee benn dooni ñaar te moo ko fi njëkk a taxawal kon kooku ab jàngalekat la woon waaye ab liggéeykat la woon boo xasee ba nekk baykat rek yow moom bokk nga si facteur yi nga xam ne ñiy développé réew mi ci nga bokk ndax amul benn réew boo xam ni mën naa développé sans bay te moom baykat la woon daan bay noor daan bay nawet waaye loolu yëpp day wane was yi nga xam ni maam Ahmadou Ndaak Seck moom la taxew woon cana ba muy àll ba àll wa allahu akbar kon moom jàmbaar la woon liggéeykat la woon waaye jaamukatu yàlla woon xam naa ni kàddu yi bëggoon nañ mu gudd li mu gën a gudd li waaye comme waxtu bi dafa xat te fi ñu ko dugaloon romb na te li li ñu waroon a wax yëpp bàyyi bi daanaka dugalaan na ko ci biir kàddoom suñ bàyyi bi kon dañuy dayloo kàddoom ñu nuyuwaale mbooloo mi sant leen gërëm leen bu ko defee ñu jox kàddu gi sëñ Saada moom itam mu sant mbooloo mi gërëm leen salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ci ndigalul sëriñ bi di jox kenn ku nekk wàccuwaay ba nga xam ne suñu borom moom la ko jox ci bés bu màgg bi muy góor jigéen mag ak ndaw kon ñu doole teewlu rekk kàddu kilifa gi mu sànn ci ay kàddu ñaanal mbooloo mi bu ko defee ñu ñaan yàlla waat ko ay déwén yu bari bi jaay seydil wujud sallallahu alayhi wa sallam bismillah sëñ bi nee na mi ngi muslu saytaane nee na mi ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangub sang yi mi ngi wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa dolli di tëbb ci faydu Seydina Muhammad nee na ma ngi dolloo tëbb ci faydu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moom mi nga xam ne mooy xutbu daairatul wujud. moom mi nga xam ne mooy xutbu daairatul wujud. waaw mooy haadi ila siraatikal mustaqim. nee na mooy haadi ila siraatikal mustaqim. Ah, dañuy tënk kàddu yi rek. mu ne day tënk kàddu yi rek. ndax dañu su doon luy doy doy na. ndax dane su doon loo xam ne dañ koy day doy doy na luy doy rek doy na nee na lépp luy matit mat na ndax arab dafa wax ne lu aju ci lu rafaa lépp day rafaa kon ñun sant na yàlla bu baax nee na sant na yàlla bu baax di wax alhamdulilahi di wax alhamdulilahi ala kulli haal ala kulli haal sant nañ yàlla nee na sant nañ yàlla ci kattanam ci kattanam ci mayam ci mayam ci sañ-sañam ci sañ ci coobareem ci coobareem lépp lu mu doon ci lépp man di doon kon alhamdulilahi rabbil alamin nee na kon ah, rek la nee na kàddu yi rek la dañ koy tënk nag nee da koy tënk rek ñu ngi nuyu suñu papa Abdou Karim nee na mi ngi nuyu suñu suñu papa sëñ suñ ko nuyoo nee na su ma ko képp ku sëñ Mbay Sekk jaboote. képp koo xam ne sëñ Mbay Sekk moo la jaboote. nuyu nañu la. nee na nuyu la ci saa ak ci baatin. ñu ngi koy gërëm bu baax. nee ñi ngi koy gërëm bu baax sëñ Abdou Karim ñu ngi koy sant bu baax. nee na mi ngi koy sant bu baax a baax. ku ñu jàppale la. nee na yéen ni jàppale gi nga xam moom la jàppale njaboot. ku ñu yaatal la nee na kuy kul yaatal njaboot gi la waaye ku ñu dimbali la nee waaye ku leen dimbali njaboot gi la yàlla na yàgg suñ kanam nee na na ko yàlla yàggati suñu kanam moom tax na moom tax na nee moom tax na de ñun jooyuñu Baye Maodo. ñun jooyuñu Baye Maodo. ndax taxawaayam. ndax taxawaayam. ndax rafetalam. ndax rafetalam. ndax jëfam. ndax jëfam. waaye kenn ku ne. waaye kenn ku nekk. loo jëf rek. loo jëf rek. moom la la yàlla fay. loola la yàlla di fay. ndax yàlla. ndax yàlla. du juum. du juum. du jaawale. du jaawale. suñu jënnee foofu. nee na bu jógee foofu. suñu ci. ci ñun ci suñu biir. nee na ñi nga xam ne ay doom yu bàyyi lañ. ñun ñi nga xam ne ay doom yu bàyyi lañ. te di ay ndaw. te di ay ndaw. su ma jëkkee sëñ Babacar. nee na bu jëkkee sëñ Babacar naa waa kër Pape bi yëpp. kon foofu mat na sëkk. nee na kon foofu mat na sëkk. nga dem ci kër papa Adama. nee na nga dem ci kër sëñ Adama Seck. soo tuddee sëñ Babacar. soo yóbbaale na géew ñëpp. yóbbaale na njaboot gi yëpp. nga ñëw ci kër papa Alpha. nga ñëw ci kër Baye Alpha. nga tudd Talla. nga tudd Serigne Talla Seck. yóbbaale na ñëpp. yóbbaale na njaboot bi yëpp. nga ñëw ci kër Papa Sada. nga ñëw ci kër Papa Sada. nga tudd Baye Jibi. nga tudd Baye Jibi. yóbbaale na ñëpp ñu doon yóbbaale na njaboot gi ñëpp. kon loolu rek doy na. kon loolu rek doy na. te junj doy na borom xel. te junj day dañ wax ne doy na borom xel. kenn ku ne nag. kenn ku nekk. sa farlu. ak sa jëf. ak sa rafetal. ak sa yaatal. sa bopp rek. sa bopp rek nga koy defal. ndax yàlla ku maandu la. ndax yàlla dafa maandu. kon foofu. kon su dee ci su dee ci mat na sëkk. mat na sëkk. ah guddi gi nag. nee na guddi gi nag. ndax ci bis ba ndax ca bis ba altine guddi googa ca guddi googa moo tombe guddi gi moo tombe ak guddi gi kon guddi gi guddi gu baatina la tey guddi gu baatina tey daana tey da cee borom guddi gi nag nee na guddi gi nag attan na lépp attan na ko waay yan rek ci mbaax ci mu wan ni la mu wan ni la gën a baax maa la ko ëppale kon ñu ngi sant bu baax. kon nee mi ngi sant bu baax a baax. Baye kar Ndoye. nee ñu ngi lay sant. ñu ngi lay bu baax. na ko Baye Modou daan defe na ko góor di la gërëm bu baax. di bu baax. yal na yàlla guddal sa fan. na yal na yàlla guddal gis nañ taxawaay. gis nañ Babacar Tall. Baye Babacar Tall. Baye Modou Tall. Baye Modou Tall. ñu ngi leen di sant bu baax. nee na mi ngi leen sant bu baax. dama koy tënk rek. nee da koy tënk rek. ba ca Baye Mbassa Diaw. ba ca Baye Mbassa Diaw. Kër Maysa. Kër Baye Mbaye Sow Baye Mbaye Sow Ngombel Ngombel Bale An Baye Bale An Kër Sangone Kër Sangone parce que tam kilifa nee na kilifa mënut a ñàkk mënut a ñàkk ay Baye Fall yoo xam ni ay yoo xam ni rijaal yoo xam ni ñoom la ko yàllay booleel ñoom la pour ñu ànd pour ñu ànd tabax jamono tabax jamono te ñooñu te ñooñu dafa am dafa am ñun doonoon ci góor gi ci góor gi ak Baye Mbaye Cissé Anen. ak Baye Ibrahima Jinkam. ak sëñ Ibrahima Jinkam. ñu ngi sant ñëpp. nee na mi ngi sant ñëpp. ku rek. nee na ku mu ak ku ma ak ku mu tuddul. ni. jàppal ne. ñoo yem ci man. yow la naa ñëpp. tudd na ñëpp. ndax nag Baye Maodo nag. ndax sëñ lim yor ciy Baay Faal lim yor ciy Baay yor ko ci ay rijal yor ko ci ay góor yàlla ku leen doon tudd fii ba suba kenn mënu koo lim kon du jeex kon kuñ tudd rek ak kuñ tuddul jàppal ni sa morom mañ tudd jàppal na sa morom mañ tudd yóbbaal na la géew yow lan ko tuddal te lu nekk lenn te lu nekk lenn lenn dong lay doon a ñun ñëpp ñun ñëpp yàlla ak ñu fi daje yàlla ak rasulullah moo ñu fi daje te ñoom ñaar lenn dong la te ñoom kenn la te ñun ñëpp te ñun ñëpp. ngir yàlla tax ñu teew ngir yàlla moo tax ñu teew moo jaral ñii moo jaral ñii ñu tëj seeni kër ñu tëj seen i alal jël seen alal jël seen wërsëg jël seen wërsëg xotti seen i mbubu xotti seen jël seen i teraanga ñëw fii ñëw fii ngir genn ngir genn muy guddi yonent bi rek ngir guddi te jënn jëm rek moo tax te moo moom kenn la te moom kenn la muy yàlla muy yàlla te loolu rek a tax nee na loolu rek moo tax ngeen def ko ngeen def ko kon yàlla da leen di fay kon yàlla da loolu amuñ ci sikki sàkka nee na amuñ ci taan maam jaara Jóob nee taan maam jaara ñu ngi koy ziar bu baax ñu baax di ko gërëm bu baax di la bu baax te taxawaayam sa taxawaay moom wuutale wu ma yaa ngi nga bokkal waay ñu nee na ak Baye Maodo lam daan defal Baye Maodo rek nee na defal góor gi la ma defal nga ko defal ngir xoole ma ko ngir xoole ko fa loolu démb la woon nee loolu démb la woon du tey yal na yàlla fay nee na yal na yàlla fay la ñu ko nee na yal yaa sugay yal na yàlla fayal ñu ko yal kóllëre nee kóllëre balaa nekk kóllëre dëgg balaa ko seqaloon ki ko seqaloon wan la ginnaaw wan balaa nekk kóllëre dëgg ko seqaloon ku la koy gën a jàpp fekkee yàllaa taxoon su koy gën a dundal da yàllaa taxoon su dee fekkee yàllaa tax ma del kër Baay Maodo la suñ ma tuddee suñ ko tuddee yóbbaale ñëpp géew ndax maay bopp suñ ma tuddee suñ ko tuddee yóbbaale naa ñëpp géew yóbbaale na ñëpp géew ni ma ko tënk ci kër Pape rek laa koy tënk ci kër sama papa ci sama bopp mu yóbbaale ñëpp géew yóbbaale ñëpp Abdou Thiam nee na Abdou Thiam ñu ngi koy gërëm ñu ngi lay gërëm moo ngi ñi mu àndal ñëpp yaa ngi nga àndal ñëpp jóge na nga daan defal sama baay rek moom ma defal ci gàmmu gi. moom moo ko defal ci gàmmu gi. te soññu ma la. te soññu la. loolu kóllëre démb la. nee na loolu kóllëre démb la. nit nag. nee nit nag. saa yore mbatt. saa yoree si ba jekk. sutur si ba jekk. da koy delloo ci ndaal yi. da koy delloo te yéen ñëpp noonu ngeen def. te ne yéen def. ñun leen dara. nee defaluñu leen dara. ñenn ñi sax mosuñoo teg seen tànk seen i kër. ñenn ñi sax mosut a seen i kër. Baye Mor daal jaayante ak yéen. Baye Mor daal ngeen jaayante ak moom. ngeen jaayante ak moom. mu jóge fi. mu jóge ngeen continuer jaayante gi ngeen continuer la daan def kon yàlla rek a taxoon kon loola yàlla rek moo tax ngeen di ko def du fi jóg te yàlla du fi jóg te yàlla du jeex te yàlla du jeex te yàlla du wuute yàlla du moo fi nekkoon démb moo fi te moo fi nekk tey te moo fi nekk tey kon kooku kon kooku ku yabu rek ku yabu rek bañ xool dara bañ a xool dara te jël sa bopp te jël sa bopp jox yàlla jox ko yàlla Cheikh Diouf nee na Cheikh Diouf mu bàyyi Serigne Maodo ñu ngi lay gërëm bu baax nee na gërëm bu baax sant di la yow amoo sago ci baay Maodo. nee na amoo sago su ma la wooyee. nee na bu la la Cheikh Diouf. ne ah, dañoo tol ci programme sangam. dañoo toll ci programme sangam. ndox yi ñuy naan. ndox mi ñuy danaa loolu jëruwoo sax nga di ma woo. danaa jëruwoo sax nga di ma woo. danga ba baa ñëw jël si ko rek ma jox la. yóbbante baa nga ñëw jël si ko. bari na ndox muñ fi naan. nee na na ndox muñ fi naan. li si ëpp moo ko joxe. bari na ñeneen ak ñeneen. nee na bari na ñeneen ak ñeneen ñu fi def ñu def ñu moom. ñu def ne moom. waaye moom laay def bopp bi. waaye na moom lay def bopp bi su ma ko tuddee rek. su ko tuddee def ñu moom rek. ku def na moom rek yaa ngi ci biir. yëgal na yaa ngi ci biir. guddi gi nag. nee na guddi gi la. kenn ku ne. la ngay def. ci sa pas-pas. ci sa pas-pas. ci sa wërsëg. ci kenn forcé wu ci. kenn forcé wu la ci. bëgg yonente bi. ak cofeel. ak cofeel. moo tax. moo tax nga di ko def. kon li ci def rek. kon lu ci waaye def rek yàlla moo lay fay yàlla sama góor ga nag nee na Sëriñ Maodo nag Baye Maodo Babacar Baye Maodo Babacar yàlla yàlla fayal yàlla na yàlla fayal ñu ko amiin yàlla yàlla fayal ko yàlla na mu ko yàlla fayal amiin yàlla fay gi sax laay wax na yàlla dolli fay gi sax laay wax ndax yàlla fay na ko ndax yàlla fay na ko ci kër maamam ndax ku ñëw ci penc mi ndax ku ñëw ci penc mi xam ni penc mi Como samp ko fi. Como samp ko fi. ku ñëw ci penc mi. ku ñëw ci penc mi. xam ne penc mi. xam ne penc mi. yaa fas tegu ko fi. yaa fas tegu ko fi. ku ñëw ci réew doom bi. ku ñëw ci réew doom bi. di nga gëm ni. di nga gëm mooy dëgg. mooy dëgg. moo tax yàlla fa ko. moo ko. yombul de. nee yombul de. waaye nag ak xam. waaye nag ak xam. ak maandu. ak gëm maamam. moom la ko sànce de. moom la ko sànce. kon yàlla nangul na ko. fii nag. fii nag. kër yàlla la. kër yàlla la. dafa mos a wax fii gàmmu. Baye Maodo dafa mos a wax fii gàmmu. ni ku fat ñëpp. ne ku mënta fat ñëpp. amoom nekk. am yàlla tax muy wax. ñi am yàlla moo tax am yàlla. ku am yàlla di xajoo ñëpp. moo tax mu ne ku mënta fat ñëpp. moo tax mu ne ku mënta fat ñëpp. amoom nekk. amoom nekk. booba ñi am yàlla tax mi wax. nee na booba ñi am yàlla ma. ku am yàlla. nee na ku am yàlla. ñëpp ngay ku xajoo ñëpp nag. nee ku xajoo ñëpp nag. ku ne nga ca biir. ku ne nga ca biir. suñu papa Alpha. nee na suñu papa Alpha. dafa am sax gu baax. da koo mos a wax kàddu ne. ma Sëñ ne ko Sëñ Saada. bul nungu. yow bul nungu. kenn yàq sa jikko. kenn yàq sa jikko. rek. waaw ndax baax doo nga am solo ndax nu waay mel rek ndax nu waay mel rek boppam boppam kon yan yàlla dimbali ñu kon yàlla nañu yàlla boole dimbali ci mbaax dimbali ñu ci mbaax dimbali ñu ci sutura dimbali ñu ci sutura guddi gi nag guddi gi nag ku fi ñëw ku fi ñëw te aaja fajiwul te aaja fajiwul yaa ko sikki sàkka waaye ku sikki sàkkuwul nee sa aajo faju sa aajo ni Njaga Jóob xaban ku Njaga Jóob xaban ñu ngi koy sant bu baax nee na koy sant bu baax bokk na ci Baye Fall yi Baye Mor taxaw ci ginnaaw Baye Mor da su góor gi joxe su góor gi joxe mu ne ko joxeel naa la junni sa gàmm sa gàmm bokk na ñi njëkk dugal wërsëgam bokk na ci njëkk dugal wërsëgam fii ci kër gi te kenn du ko soñ te kenn du ko soñ kon kooku kon kooku Baye Maodo lay gis ba léegi. Baye Maodo lay gis ba léegi. waa Kër Mbir Ndaw. waa Kër Mbir Ndaw yi. ah yéen. nee na yéen. yéen ak waa jandeer yi. nee na yéen ak waa jandeer yi. yéenay borom kër gi. nee na yéenay borom kër gi. yéen yéenay sagal kër gi. nee na yéenay taaru kër gi. ci seen pas-pas. ci seen pas-pas. ci seen wërsëg. ci seen wërsëg. ci seen i jëf. ci seen i jëf. ci seen kattan. ci seen kattan. kon yéen yéen a gërëm seen bopp kon yéen a gërëm seen bopp ndax jëf rek nee na jëf rek day wane lépp day wane lépp Cheikh Ibrahima Fall nee na Cheikh Ibrahima Fall dañu woon maam maam seen Touba dama lay laaj dama lay laaj wax ñiy wax luy seenu fay ëllëg luy seenu fay ëllëg mu ko lool yàllaa yàlla moo ko xam ëllëg la leen koy fay mu ne ko ñiy jëf nag mu ne ko ñiy jëf nag mu ne ko ñiy jëf mu ne ko ñiy jëf yàlla du xaar ëllëg yàlla du xaar ba ëllëg fii la leen di fayee fii la leen jama dencee leen lu ëpp lim leen di fayee fii ëllëg dencee leen loo xam ne ëpp lim leen di fayee mu ne ko lu mu ne ko lu mu ne ko ah mu ne ko ah luñ fi lekk baa ñu naan baa ñu naan ko baa basan guñ fi lal baa basan guñ tëdd ñu tëdd ko fi def ñii jëfe ko fi def kon faaw yàlla fay ko kon faaw yàlla fay leen ko xaare leen leneen fële ëllëg xaare leen leneen ëllëg te yéen ñëpp noon ngeen def te yéen taala xaar dani woon nee na sëñ taala xaar mu sekk dara wax naan taalibe ak sëriñ taalibe ak sëriñ donc ak i njanaaw la donc ak i njanaaw la kenn mënta dem ba morom ja kenn mënta tàqale ko morom ja kon ñun kon nag ñun dañoo ànd dañoo ànd nekk ay taalibe nekk ay taalibe bokk dooni taalibe bokk dooni taalibe ndax kenn ku ne ndax kenn ku ne man di jëriñ sa morom man di jëriñ sa morom loolu doo nga ñu boole loolu rek moo ñu boole kenn mënta dem bàyyi sa morom kenn mënta dem bàyyi sa morom ñu ànd ñu ànd nekk ay nawle nekk ay nawle Baye Maodo nag nee na Baye Maodo nag am na doxin boo xam ni. am na doxin boo xam ni. dama daan toog. da daan toog. keneen toog. mu def ko. mu def ko. da daan may ni salaat fatiha. da daan may ni salaatul fatiha. ni sa kilifa gii sa baay. ne sa kilifa gii di sa baay. addi yi ji nga jox. addi yi ji nga jox. joxal ma ko. joxal ma mooy sa sëriñ. mooy sa leen ci loolu. continué leen ci loolu. ngeen fonk waajur yi. waajur yi fonk leen leen. nee yi. ñooy caabi yi. mooy bunt yi ngeen bëgg mu tijji bu waajur. gis nga rot si ëtt bi. nee sa waajur gërëmul. te sa gërëmul la. soo dikkee ko du yomb de. nee na xaar dani woon. nee na taalibe. bis mu nekk taalibe. jumloob sëriñam. jumloob sëriñam. ndax ndax lan muy dafa bàyyi ñaari waajuram mu ne dafa bàyyi ñaari waajuram la ko fa war la ko fa war defu ko ba pare door a ñëw fii door a ñëw fii kon fonkaat leen waajur yi nee na nan fonkaat waajur sa waajur gërëm rek ku sa waajur gërëm rek loolu làmb di nga ko daj loo làmb di ko daj loolu yóotu di ko jot loolu yóotu dina yàlla yàlla defal ñu barke kon yàlla nanu yàlla yàlla yàlla kattanal ñu ba liggéey Baye Modou bi nga xam ni moom sin mbay sekk rek la tegoon mbay sekk nag la doon liggéeyal sin mbay sekk ba def lii ba def yàlla yàlla kattanal ñu yàlla ba ñun njaboot gi gi ñu def ko noo xam ne su ma nee njaboot gi nag su nee njaboot gi nag doomi leer yi tax may wax de doomi leer yi moo tax muy wax ndax ñu ñëpp ndax ñun ñëpp ay doomi leer yi Baye Maodo ay doomi leer yi Baye la li ngeen doon ci moom rek li ngeen doon sàkk ci moom moom lañ doon ci moom de moom lañ doon sàkk ci moom suñ ko deful woon it ko deful woon ngeen raw ñu ngeen raw duñ tolloo sax baa duñ tolloo da ngeen a def noon ñu def def noonu ñu léegi nag doomi leer yooyu moo fi nekk doomi moo fi amul doomi deret doomi leer la am doomi leer la am ndax ku mus a jur ndax ku jaay njuréel gi da ngaa ko taalib jënd ko ak taalib da ngaa jaay njuréel gi da ngaa ko ak taalib te fii li fu am. te la koy may. ak taalibe koy may. fii li am. fii la koy may. nungoo moo am. fii la koy may. séddee cër moo la koy kër Seexu Canaba. ndax kër Seexu Canaba. moo baaxee noonu. moo baaxoo noonu. cëri nag. cëri nag. kenn séddale ko sa bopp. kenn séddale ko sa bopp. yàlla yàlla moo yor damier bi séddale. yàlla moo séddale boppam. kenn ku ne li nga ku nekk li nga moom. moo la ko jox. moo la koy jox. kenn ku ne amit. kenn ku ne am. yàlla nga ko muurloo. yàlla nga ko muurloo. man nag. nee moom nag. li ma fas yéene. li ma fas yéene. ci kër Baye Maodo. ci kër Baye Maodo. sama wax du bari. waxam du bari. jëf rek laa fas yéene fii. man Baye Maodo. nee na rek. di ko jëfal. jëf joo jëf joo ni. jar moo koy wax. du jar moo koy wax. ku ñëw. ku ñëw. di nga sa bët. di nga xam jëf na. yaakaar naa gàmmu gee. bi ngeen fi ñëwee. bi ngeen fi ñëwee. ak bi ngeen ñëwaatee. ak ngeen seen bët. wuute na. te yéen rek laa ko àndal. ci seen pas-pas. ci seen seen mbaax. ci seen mbaax ci seen dëggu. ci seen dëggu seen jàpp baay moo la ci seen jàpp baay moo la. ak bëgg koo sagal. ak bëgg koo sagal. kon yal na yàlla kattanal. kon nu yàlla kattanal. ba su déwénee. ba su déwénee. suñ fii. suñ dajawaatee fii. ku def fii sa wërsëg. ku def soo yëg soo dikkee. soo di nga xool. di nga xool yëg ni. defal nañ la ko ci. defal nañ la ko dafa xool ne. man. moom ëppalante wu ma ay étage ëppalante ay étage dàqalante wu ma kër dàqalante wul ay kër yàlla laa tabaxalum nekk laa tabaxalum nekk waaye man tànkam laa jaar de waaye tànkam la jaar bu mu ma birig sama bopp tegalagu sama bopp man birig boppam ma birig sama bopp nee na gi nga kër yàlla la lu yàlla la la jumaam te te fii ak mel ni ma gënal. fii ak mel ni ma gënal. gënal leen. gënal leen gisuma la nen. gisuma la nen naa fanaan ci biti. nee na nay fanaan ci biti. yàlla tëdd biti la. nee na yàlla tëdd biti la. góor gee ko daan wax. nee na góor gi moo ko ku ragal ku ne rek. ku ragal ku ne rek da ngaa xat. da ngaa xat. yàlla daa yaatu. nee na yàlla dafa yaatu. yaatu yàllaa tax. yaatu yàllaa tax. ma Ahmadou Ndak. ma Ahmadou Ndak. radiyallahu taala anhu. radiyallahu taala anhu. daan jënd jëmu. doon jenn jëmm xëy am ma moo sek xëy am ma moo sek xëy am ma ma xëy am ma ma dikke xëy am ma ma xëy am ma Ibra kenn ku ne nga jur njaboot yoo xam ne. nga jur njaboot yoo xam ne. ñoo ëpp. ñoo ëpp ba kenn ku ne. ba kenn ku ne. xanc si leer. xanc si leer. ñëw di sédd ci kër gi. ñëw di sédd ci kër gi. loo xam ni. loo xam ne. nit sant sant na sekk sax. nit sant na sekk sax. te te sédduwu ko. te sédduwu ko yàlla noonu la mel. nee na yàlla noonu lay fayee. Baye Maodo. nee na jurul ci ci sax. nee na ñi jurul ci saaye ñoo ñoo gën a ñoo gën a séddu ci moom. nee na ñoo ëpp cër sax ci moom. parce que moom yàlla rek la doon liggéeyal. ndax day dimbali. nee day dimbali. bay dimbali. bay ñu bokk ci ñeneen tarix. ñu bokk kon loolu rek doy moom da doon liggéeyal yàlla ci jaam bi. moom da doon liggéeyal yàlla. te yàlla fay na ko. sama nijaay ñoom Balla Sow. nee na nijaayam Balla Sow ñoom. Mbaye Sow. ma ñu aji ci ñoom. ak ñëpp ñu aji ci ñoom. ñu ngi leen gërëm bu baax ñu ngi leen gërëm bu baax. seen taxawaay rafet na. seen taxawaay rafet na. yéen jàppewu leen góor gi goro de. nee na jàppewu góor gi ab goro. waaw dangeen koo jàpp ngir yàlla. koo jàpp yàlla tax. waaye nag yàlla fay na leen. yàlla fay na leen. kon ñu ngi gërëm suñu waajur yi. kan ñu ngi gërëm suñu waajur yi. ma di ñaanal sama waajur bu baax wa. di ñaanal waajuram bu baax wa. soxna Mbène Seck. yàlla yàlla yokk leeram. yàlla yàlla dolli yàlla yàlla xaare ko àjjana nee na yàlla ko yàlla xaare àjjana ndax lu ñu am rek ndax lu mu am rek moo ñu ko liggéeyal nag moo leen ko liggéeyal ndax dañu liggéeyu ndey ndax liggéeyu ndey añu doom añu doom kon yàlla yàlla ñu ko kon yàlla na ko yàlla fayal yàlla yàlla mottalil ko nee na ko ca ili ca ili di ko ko fay di ko ko fay te du jeex te du jeex moo Baye Maodo moo ko fa nekk suñu yaa may Cissé neen suñu yaa may Cissé ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi koy gërëm di ko sant suñu yaa soxna Ndeye Sall soxna suñu yaa soxna Ndeye Sall ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant ñoom dañoo yàgg ak Baye Maodo nee na ñoom dañoo yàgg ak Baye Maodo ba ñu ak suñu yaa soxna Awa Sow ak suñu yaa soxna Awa Sow ñoom ba ñuy nekk ak Baye Maodo nee na ba ñu nekk ak Baye Maodo neexul de neexul woon dafa metti woon dafa ñu muñal ko ñu muñal ko jàppale ko jàppale ko defaral ko defaral ko gis nga suñu sànce yi gis nga suñu toll noonu ci kër gi ñoom daj nañ lu ëpp loolu leen ko gërëmee nañ leen ko gërëmee ndax ñoo jamono neexul woon te jamono neexul woon te Baye Maodo nag te nekkoon koo xam ni nekkoon koo xam ne dafa ñima dëgg dafa ñima dëgg ba su la koy wax du ko waaj du koy wax te du la yërëm danaa wax naan. danaa wax naan. du ma leen yërëm. du ma leen damay bañ. ndax damay bañ. li am ci man. li ngeen am ci man. ngeen ñàkk. ngeen ñàkk. waaw ndax lim yor alal yàlla la. ndax lim yor alal yàlla la. njëg la day jaay. njëg la day jaay. pas-pas ak wóolu rek. pas-pas ak kóolute rek. moo koy jënd. moo moo tax ñun. moo tax ñun. ni taalibe mel ci moom. ni taalibe mel ci moom ñun ñëpp. lañ meloon ci moom ñun kuy ñëw ci kër gi xam nga ko kuy ñëw ci kër gi ku ne xam nga ko daan dawal kon yi Baay Faal dañ ko daan dawal ni ay Baay kenn du tala mbubu kenn du tala mbubu comme ci woo nga fëx comme ci woo nga daw parce que li ñëpp wut ci moom. parce que li mu yor ko. mu yor ko mais ñun dañ ko war a ci moom. ñu ne dañ ko a am ci moom mooy tax ëllëg yéen. ku ci waaxu yaakaar ko. ku ci soo dikkee da nga ko fi fekk. soo dikkee fekk ko fi. waaye gëm ngeen fekk ngeen ko fi. waaye ko fi. Baye nag. Baye Maodo nag. da daan dimbalee ci yàlla. da ba léegi jugu fii. ba léegi jugu fii. ku mar soo dikkee fii. ku mar nga naan. di nga naan. ci ñëpp nag ci kër Mbaye Sine Seck. ci kër Baye kër Sine Mbaye Seck. Sine li ko yàlla defal. daa yombul. canaba. canaba képp kuy lamb maarifa. képp kuy lamb maarifa. ku man ngaa waat ni soo dikkee ci kër Serigne Mbaye Seck soo dikkee mu yomb la di ko daj nag moo ko liggéey nee nag Serigne Mbaye Seck ko liggéey waaye nag waaye ku mel ni Baye Maodo ku mel ni ñëw nag jëmbat ko ñëw suuxat ko suuxat ba mu man suuxat ba muy folate fépp ba muy folate fépp yàlla na yàlla fayal ñu leen kon yàlla na yàlla fayal ñu suñu mi suñu kilifa mi suñu xalifa sunu xalifa ñu koy ñaanal wér ñu ngi koy ñaanal gudd fan ndax nag koo ni kàddoom kàddoom dooleem dooleem mayam mayam sañ yàllaa ko ko jox ndax mooy kilifa ndax mooy kilifa kooku su la yërëmee kooku su la yërëmee yaatal la yaatal gudd fan rek nga ko war a wér ak gudd fan rek nga ko war a ndax bari na ko ilif nit ndax bari na ilif nit da nga koy ne ko maa la ilif da nga doo ko mos a jàmmal doo ko waaye nit soo ko ilifee nga gëm ne yàlla nga ko ilifee nga gëm ne yàlla nga ko ilifee da nga koy yaatal may ko jàmm da nga koy moom loolu la ñuy defal moom loolu lu tedd rek. lu tedd rek xeeb nañ ko. xeeb yàlla yàlla man na daaw nu ma yàlla bite. nee na moom nag dafa am ko bite. man du ma tricher man Sada. nee moom du tricher. man Sada. nee na moom Sada. du ma tirise nee du tricher. am naa beneen tur na ngi ne damaa naqari deret. nee na am na beneen tur boo xam ne naan ko nangaa naqari deret. waaye du ma tooñ de. waaye nag wax dëgg rek laay def. waaye su ma la koy waxit na ko bàyyi moo daan defe laa ko du ma ko wàjje waaye su ma paret pare naa ci kon kon rek rek dama leen di ñaan dama leen di ñaan nañ bëgg yàlla nañ bëgg yàlla nañ topp yàlla nañ topp yàlla nañ wóolu yàlla nañ jox yàlla suñu bopp nañuy sàkku yàlla fu ñu toll yàllaa fi ne leneen néew fii lu waaye jënde leneen lu dul yàlla bis dina ñëw nga réccu ko lu waaye téye lu dul yàlla bis dina ñëw nga bàyyi ko kon yàlla moo fi ne moo ñuy dundal moo ñuy woddu moo ñuy jox tiraanga moo ñuy solali mbubu benn jaam defalu ko kenn ku ko am yàlla la koy jox te moo koy jaarale fu ko neex kon nañ delloo yàlla suñu bopp te bañ cee xool dara nañ bañ a sàkku lenn te sàkku yàlla ndax yàlla foofu lépp te ko am lépp kon ñu ngi wax ni asalaamaaleykum wa rahmatulahi gërëm naa ñëpp nag sant naa ñëpp man sama xol dafa sedd dafa sedd munu ko munu waaye nag dinaa sippi kenn waaye nag dinaa setti Jibi nee na Baye Jibi yàlla yàlla wéral la yàlla na yàlla wéral yàlla yàlla guddal sa Baye moom kenn kenn ku ne. daa laa jox mission. daa xam nga lim la jox. te xam nga lim la jox. soo ko nungoo rek. nungul keneen gosam rek. mbir mi sa kaw lañ koy si. mbir mi sa si. ci bëccëg maa ngi lay xool. nee na nga ànd ak gars mel ni waroo gàmmu guddi. mel ni waroo gàmmu ci di ranceler seesi. di di teg. di teg lii lépp. sa taxawaay la. sa taxawaay ak groupe WhatsApp kon yàlla na yàlla fay leen nee na kon nag yàlla bi yàlla nga wér nee na bàyyi ji bi yàlla na nga gudd fan sagal nga sa bàyyi ci penc mi sagal sa papa ci penc mi yàlla yàlla sagal la yàlla na yàlla sagal dëggalal nga sa bàyyi ci penc mi dëggalal nga sa yàlla na la yàlla na yàlla ndax loolu nga jëf ndax loolu nga jëf yàlla na yàlla fay la ko kon ma tuddul rek na ku tuddul rek tudd la tudd xol tudd ma tuddul ci saayir ku ma tuddul ci saayir tudd naa la ci baati tudd naa la ci baati na aale samay wële wëllëre dañ ay wëllëre te bari na fu ñu man a fanaan guddi gi a fanaan ci guddi gi waaye sedd ma sama cër waaye sedd ma cër tax ñu ñëw bokk ak man tax ñëw bokk moom fanaan man ba ba sedd ak moom guddi gi yàlla yàlla fay leen nee na yàlla na yàlla fay yàlla borom guddi gi fay leen yàlla borom guddi kon maa maa ngi guddal nee na mi ngi guddal waaw maa ngi sant ñëpp nag mi ngi sant ñëpp di sant sama rakk yi ma bokkal baay yëpp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 لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك وهداك جزاك المتهم وانصرك الله نصرا عزا خذ بدائرة الوجود والجلال والجمال مفتاح اسرار الخروج هو حسنة عين الكمال وهو نار وهو نور سر المكنون اللهم اني اسالك تتعامل عني جمل ما لهذه صلاه الفاتح من الاسرار والانوار والتجليات والمعروفات الى ان يوديها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 Paris